waaw kon mbokk yi incha allah incha allah ñu ngi war a jël tey ay fukk ak ñett muy vers ci treize ci suratul kaf ay treize suratul kaf ñu ngi noonu alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñi ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ci mu wërsëgal ñu ñuy daje tey suñu daje bu jëkk ci téere bi yàlla bi ci atum 1441 te ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaayi en makka jëm madina ñu ngi ñaan suñu borom yàlla subhanahu wa taala defal ñu ko atum jàmm ak atum ngëm atum jébbalul ko ak atum mucc ak dëppoog la nga xam ne moom la gërëm teyit mooy juróomi lu fan ca at boobe doonte ne ni am na déclaration yu jiitu woon di wax ni dimanche mooy benn fan waaye mujj nañu am ay xabaar yu jóge Arabie saoudite yu officiel yuy wone ni ñoom gisoon nañ weer wi ci àjjuma ja kon bisu samedi la tey mooy juróomi fan yawmu ashura mi ngi nekk altine bi di ñëw nga xam ni yell na ci bépp jullit bu amul ngant mu woor ko santit ku mën a woor ci njabootam ñu woor ko kon incha allah ñu jël suñu bind bu jëkk ci nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq naam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu boroom subhanahu wa taala day wax ni nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq lii di istuwaaru xale ya duggoon ca gorot ba day ñun ñoo lay nettali seen xabaar ci dëgg innahum fityatun amanu bi rabbihim ñoom day ay ndaw lañ yoo xam ni dañoo gëmoon seen boroom wa zidnaahum huda ñun yàlla ñu dolli leen ak njub wa rabatna ala qulubihim ñu daldi dëgëral ci seen xol ya iz qaamu fa qaalu jamono ja ñuy taxaw ñuy wax ni rabbuna rabbu samawati wal ard suñu borom day mooy borom asamaan yi ak suuf lan nad'uwa min dunihi ilaha duñu woo mukk gannaaw moom benn yàlla laqad qulna idan shatata suñ ko defee day wax nañ kon loo xam ne lu jeng la ca mooy fen wu rëy هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة sunu xeet day ñooy ñi nga xam ne jël nañ gannaaw yàlla ay yàlla yeneen lawla ya'tuuna alayhim bi sultaanin bayyin aka neexoon ñu indi ci loolu ay lay yoo xam ne lay wu leer la faman azlamu mimman iftara ala allahi kaziba ana ko gën a mën a tooñ ci ki nga xam ne day dóoral ci yàlla li nga xam ne mooy aw aw fen mbokk bi ñu mujjee daje fii suñu boroom mi ngi ñuy wax benn dëkk boo xam ni dañu doon jaamu xërëm ca loolu mooy jiitu yonent yàlla isa borom xam-xam yi wax nañ ay ixtilaaf ci dëkk ba fan la woon ala kulli xaal lu bari mi ngi gën a not ne côté Irak la woon waaye yàlla moo gën a xam suñu borom wan ñu ni dëkk ba bañ dajee di jaamu xërëm am na benn mbooloo ci ay ndaw bala histoire ba jeex dana la xamal ni juróom ñaari ndaw lañu woon alfata bu ko arab di wax la ëpp ci ñoom ñu ngi koy firi diggante ñaar fukki at ba ñeen fukki at loolu la ñuy tuddee jeunesse kon ay ndaw lañu woon kenn ci ñoom amu ci woon 40 ans ñoom ñoo jóg ñu ne ah ñun day lii waa dëkk bi def duñ ci dugg suñu boroom ñi ngi lay ñaan nga may ñu yërmaande ko bawoo ci yow te lii ñu bëgg a def nga defal ñu ci ak jàppandal te mooy fas yéene nañoo gàddaay suñu dëkk dem seeti fu ñu ñoŋale suñu diini yàlla yal nag ñu jàppale ci loolu yow mi fekke woon tafsir bi passé nee naa la wax la joo xam ni war nga koo gànnaayoo ci lépp loo jëm di ko sàkku ji ca mooy rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada bañ demee dugg ca biir xunti ma xunti waxoon naa la mooy néeg bu yàlla yatt ci biir montagne suñu borom yàlla nelawal leen fa daa di dóor seen nopp ya ñu daa di nelaw nelaw fa ay at yu bari gannaaw ba suñu borom mu ni ma dekkal leen ngir xam kan mooy gën a xam lañ fa peg ci dikk foofu lañ yemoon alarbe bi passé amma suñu borom nag mu ne ñun ñoo lay nettali seen histoire ci dëgg na am histoire la bu siiwoon waaye nit ñi ku nekk na yaa ngi ko daan nettalee ca la nga ca am am ñu cay wax luy dëgg am lu ca wax leneen am ñu ca yokk am ñu ca wàññi suñu borom nag ne man maa lay nettali mbir ba nam amee ci dëgg ndax borom yàlla boobu mooy ki nga xam ni amul lenn lu koy rëcc ci kaw asamaan yi amul lenn lu koy rëcc ci kaw suuf jalla wa ala suñu borom ne ay ndaw lañu woon ñu gëmoon seen borom yàlla dolli leen la nga xam ne mooy ak njub mbokk diini lislaam la nga xam ne gëm nga ko ci ndigali yàlla heure boo ca taxawee yàlla yokk sa xam-xam jagleel la loo xam ne xamoo ko woon amma lan ca jot a xam boo ko saggane yàlla subhanahu wa taala xañ la la nga jot a xam ba pare du la dolli dara looloo tax suñu borom ne wa yazidu llahu lazina htadaw huda ñay jéem a jëfe la yàlla santaane yàlla mu ne da leen di dolli ak njub borom bi it nee na moo dëgëral seen xol ya ca mbokk julit xam lu baax ak taxaw ca loolu ñaari mbir la yu bokkul aka bari ñu xam ni diine l'islam muy dëgg waaye ñima wuñ cee dugg ngir dugg gën cee dugg conséquence yi muy nar a jur ci seen diine aka bari ñu xam ne dund sunna kese muy dëgg waaye ñima wuñ koo dugg ndax suñu bàyyee mbooloo yi ñu nekk conséquence yi muy nar a am seen diine kon ñi yàlla dëgëral seen xol ñoom rek ñoo mën a xam dëgg wëlbati ko topp dëgg yàlla na yàlla boole ñu ca gis nga yonent yàlla Moussa bi suñu borom ni yaayam sànni ko ci dex gi danaa ko dellu si ci yow def ko yonent yaay ji sànni ne def ni ndigul yàlla far yàlla dogal Moussa dem ca pale Firawn histoire bu gudd na waaye suñu borom mu ni إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبي على قلبها moom xaw na sax bay fipp ne ee kii sama doom la budul woon ak ma dëgëral xolam lool it kon di loo xam ne julit da koo war a ñaan yàlla loolu la yàlla defaloon asxaabu badr keroog ba ñuy xeex mooy dafa dëgëral seen xol ya loolu tax ba ñu jóg def benn déclaration ci seen biir xeet ne ñun de suñu xeet xërëm yi ñuy jaamu ñun suñu borom mooy kii moom asamaan yi ak suuf ca loolu it mooy li julit di dëgërloo ca mooy yàlla bi ngay jaamu mooy borom asamaan yi ak suuf ku féeteeg borom asamaan ak suuf waratoo am leneen looy ragal ñu ne nag ñun duñu woo gannaaw moom kenn abadan mbokk woo kenn mooy jaamu yàlla ay duñu jaamu keneen ku dul yàlla mooy duñu woo keneen ku dul yàlla loolu moo tax ba nga la waay xam leen ne koy woo rek yaa ngi koy jaamu ca mu bokk malheur bu metti ci biir diini lislaam lu ëpp ci julit ñi bu ñu jaaxlee ne yaa cheikh diw képp koo naan yaa diw rek yaa ngi koy jaamu yaa sëriñ diw yaa ngi koy jaamu yàlla na la diw defal yaa ngi koy jaamu amul kenn koy wo lu dul ne yaa ngi koy jaamu mi ngi noonu yonente bi alayhi salaam mu ne addua huwa al ibada ñaan mooy jaamu yàlla kon ñun duñu ñaan keneen ku dul yàlla ay kon duñu woo keneen ku dul yàlla duñu jaamu keneen ku dul yàlla suñ ko defee day wax nañu lu jeng te wax ji gën a bon gi gën a jeng gu doomu aadama di wax mooy waxi bokkaale suñu xeet bii de ñoom jël nañ gannaaw yàlla ay yeneen yàlla yu ñuy yaakaar aka neexoon ñoom ci benn preuve ana ko gën a mën a tooñ ci kuy dóoral yàlla ci ay fen te it mbokk képp koo xam ne yaa ngi jaamu leneen dul yàlla ay njort rek la la seytaane di taarelal waaye ndax am nga ci benn preuve amoo ci benn preuve loolu nag kon mooy déclaration bi jëkk bi nga xamee ne nii ndaw ñooñu def nañ ko ca it di déclaration boo xamee ne nii bépp julit war naa waat def ko yal na yàlla may ñu ngëm-ngëm leen mayoon mi ngi noonu Cheikh Ousmane.
وإن اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم آمنا
fiikum suñu boroom jalla wa ala mu ne wa iza tazaltumuhum su ngeen demee ba beddeeku ci ñoom ay génn ca ñoom wa ma yacbuduuna illa allah ak la ñuy jaamu ba mu des yàlla kese fa'wu ila al kahf dem leen làqu ji ca xunti ma muy grotte ba yanshur lakum rabbukum min rahmati kon day dana tàllal ci yéen seen boroom ci lenn ci yërmandeem wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa dana waajal leen it ci seen mbir la nga xam ne mooy ak yombal mooy yërmaande ju ànd ak yombal wa tara shamsa ida talaat yaa ngi gis jant ba buy fenk tazawuru an kahfihim zaat al yamin ma ngay nekk di romb ca seen xuntima ca wàllu ndeyjoor ga wa ida gërabat bu demee bay so taqriduhum zaat al shimal ma nga leen di sori di jeng ca kotub càmmoñ ga wa hum fi fajwatin min fekk ñoom ña nga ca benn place bu yaatu ca biir xuntima zalika min ayati llah lii ci kawtii fi yàlla yi la bokk man yahdi llahu fa huwa almuhtad ki yàllu jubal dong mooy aju jub wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida ki yàlla réeral doo ko amul mukk aji féete joo xam ne moo koy jubal wa taxsabuhum ayqaasan wa hum ruquud da nga leen jort na ñoom day addi ñi yeewu lañu fekk na ñoom ñi ngi nelaw wa nuqallibuhum zaata alyamini wa zaata alshimal ñi ngi nekkoon di leen wëlbati côté ndeyjoor ak côté càmmooñ wa kalbuhum baasitun ziraayhi bilwasid lii di seen xaj ba ma nga tàllal la nga xam ne mooy loxoom ya ay mooy tànki kanamam ya bilwaside ca buntu xuntima lawi talaata alayhim su doon te ne da ngaa yërlu woon ci ñoom ba gis leen day la wallayte minhum firara da nga daw dëddu leen ñu ngi noonu da nga wane gannaaw dëddu leen di daw wala mulite minhum ruba ca da nga doon ku fees dell ku ñu feesal dell ci tiitaange goo xam ni da nga ko tiit bu doon gisoon nga leen mi ngi noonu mbokk gis nañu ne jeunesse jeunes yi bi ñu jógee dañoo daje daal di réunion dëkkub lëmm juróom ñaari ndaw ñoo fa wéetal seen borom fexe nañ ba xamante daje ca loolu it lañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon ñaax mooy julit ñi dee leen booloo daana wax ne ay julit duñu nekk ci dëkk ñu mat fa ñetti julit te duñ daje di jullit mbooloo lu dul seytaane dana leen not loolu ñu bàyyi ci xel bu baax ñu ne nag su ngeen demee ba bàyyi ñii ak li ñuy jaamu ca du yàlla daw leen ngeen làqu ji ca montagne ba loolu lan lay firi mooy ñoom dañoo gàddaay ngir rawale seen diine ca ngalawaay yow jullitit xamal ne àdduna bii day yàlla dañu fi indi dañuy nattu dund gi fi nekk dafa gàtt lool xamal ne la fi priorité mooy nga fexe ba dund sa diine diine jooju moo lay jural ajjana joo xam ne du jeex ba faw loolu nag foo ko munti dund ci kaw suuf nga la way génnal foofu dem feneen bu dee kër la génn ko bu dee quartier la génn ko bu dee réew a génn ko noonu lañu gàddaaye ca amul looy gàddaay ca yàlla tax lu dul yàlla wutal la lu ko gën moo tax ñoom ñu ne dem leen su ngeen ko defee yanshur lakum rabbukum min rahmati fokk yàlla dana yaatal tasaare ci yéen yërmandeem ca loolu it yàlla ngi koy dig mboole mi julit wa man yuhaajir fi sabilillah yajid fi l ardi muragaman kasiran wa saa suñu borom nee na amul kenn kuy gàddaay ci yàlla tax lu dul fa nga gàddaay jëm yàlla may la fa ak yaatu may la fa xiiwal yoo xam ne dana merloo sax say noonu te noonu la ko defala woon yonent bi ak i sahabaam saar bi ba muy wàcc ca makka yonent baa ngi fa ak i sahabaam waaye bañ déggee ndigal yàlla gàddaay dem madina la leen fa yàlla teeroo kenn du ko comparé ak lañ nekke woon ca makka gannaaw ba it ñoom ñu ni nañ gàddaay suñu gàddaayee suñu borom yàlla suñu mbir mi danañu ci defal waajal ñu ak yombal loolu mbokk yi tamit doomu aadama bul wax rek ne man daal dëkk bii ma nekk mënumaa safaanoog waa dëkk bi famille bii ma bokk mënumaa safaanoog waa famille bi mbokk diine amul sentiment lépp lu aju ci wàllu diine xamal ne ñaar dong la mën a doon mooy loo xam ne yàlla moo ko digg moo ko digle wala loo xam ne dañ ko caa sos la yàlla digle moom ñëpp a war a ànd joxante loxo jàpp ca amaa nag loo xam ne dañ ko caa sos bokkaale la wala ab bidaa loole yow dem di maslaha di leen jàppale ca loolu xamal ne ci danger yi gën a bon ci danger yi la bokk ndax la waroon kay mooy yow nga jóg taxaw ne leen lii baaxul ba leen ko xar ca sa tànk tubay jéem koo changer su dee dem nga nag ba xam ne mënoo ko mënoo ko changer la nga xam ne mooy la gën a néew mooy nga muccal sa bopp ca loola waaye bul wax mukk ne dëkk bi ma bokk famille bi ma bokk lii ma mënuma caa bañ a maslaha loolu ñu bàyyi ci xel bu baax kon génn leen gàdday leen seen borom dana leen waajal yërmaande ak yombal borom bi dañuy détailleel nan la ñu nekke woon ca kër fi ba nee na bi ñu duggee ci kahfi bi buntu kahfi bi dafa féete ca la nga xam ne mooy ak wet comme masalan ni buntu jàkka ji mel nii mu ne jant bi buy fenk da leen di jóge ndeyjoor su ko defee rayon jant bi day dugg ci biir kahfi bi doonte ne ni du matal kahfi bi yépp mais rayon yi daan dugg quand même noonu lay continuer ba buy soo rayon yi day ñëwaat encore te mbokkoo xam nañ ne doomu aadama fu mu nekk dafa soxla li nga xam ne mooy air dafa soxla li nga xam ne mooy lumière rawatina lumière jant boobu bactéries yi nga xam ne ñooy waral feebar yu bari amul lenn lu leen mën a gaaw a rey lu mel ne la nga xam ne mooy lumière jant bi loolu tax suñu borom tëjul kër fi ba bàyyi ko noonu air bi di dugg lumière jant bi di dugg mu ne jamono jooju nag ñoom ñi ngi ci benn place bu yaatu ci biir xunti mi ba nga xamee ne lumière bi doo tappe seen kaw mooy dana leeral xunti mi yépp dugg ci biir mais ñoom doo tappe seen kaw bu doon te ne ne bunt bi jant bi da doon fenkee penku jëm sowwu ay kon da ngay gis ne suba lañ koy gis ngoon duñ ko gis waaye gis nga ni ko suñu borom tërali jant bi buy fenk ñi ngi koy gis buy soo ñi ngi koy gis borom boobu nag subhanahu wa taala ne kawtiif ci kawtiif yu yàlla mi ngi nii suñu borom subhanahu wa taala ne ku yàlla jubal may ku jub ki yàlla seetaan ba réeral la kenn mënula jubal loolu it mu lay jàngal ne foo mën a toll ci kaw suuf del ñaan yàlla subhanahu wa taala jubal la moo tax mu farataal ku ci ñun fukki yoon ak juróom-ñaar ñu war a taxaw ci kanamam di ñaan yàlla ihdina siratal mustaqim ca loolu li muy firi e yàlla won ñu yoon wu jub mi saxal ñu ci bañu dee ci lii mooy alhidaaya tega ca yoon bi du du lool kese waaye sax ca ba dee ca loolu mooy ak njub borom boobu subhanahu wa taala ni bu doon gis nga leen da ngay jàpp ñoom nelawu ñu fekk ñu ngi nelaw te lu waral loolu mooy yàlla tëjul seen bët ya te ci xikma borom bi subhanahu wa taala xam nañ ne bët bu yàggee tëju loolu day am jeexital ci moom moo tax suñu borom tëjul seen bët ya ba boo demoon sax ci bari na ay bàyyi ma yu bari bu ñuy nelaw sax duñ tëj seen bët yaa ngi dégg ñu naan diw day day nelaw nelawi lëkk ñu noonu lëkk boo ko bettoon muy nelaw genn wàll bët yi rek lay ub lay lay lay lay tëj bu doon lu mel ne ay till buy nelaw day alterner bu ubbee bët bi une heure de temps tëj ko ubbi beneen une heure de temps ba ba muy yeewu gis ngeen ala kulli xaal suñu borom loolu la wax ci wàll googee borom bi nag ni maa ngi leen doon wëlbati ndeyjoor ak càmmooñ ndax tëdd nañ fa ay siècle mais suñu borom nee na mi ngi leen doon wëlbati ndeyjoor di leen wëlbati càmmooñ comme ni nga xamee ne boo gisee kuy nelaw yàlla nga koy wëlbati mbokk kiy nelaw xamul lu xew moom ma ngi gént yeneen mais dañ ko gis rek mu tourné rek mu tourné ndax sensation yi yàlla def suñu yaram bi fi nga tëdd deret ji bloqué bu yàggee rek da ngay soxla daal di changer position mi ngi noonu loolu nag ca la leen borom bi di wëlbatee gauche droite mu lay jàngalit ne mbokk tëraay bi gën ci tëraay yi mooy nga tëddee sa wetu ndeyjoor heure booy tëdd fexeel jëkk a tëddee sa wetu ndeyjoor nga nelaw sa wetu ndeyjoor gannaaw ba bu sonnee nga wëlbate ko wetu càmmooñ ñaar yooyu mooy la gën man ngaa it tëddee jaaxaan am na nag lu lislaam tere mooy defeenu am na ñoo xam ne seytaane da leen a not bala ñoo nelaw normal rek dañoo defeenu waaye defini moom lislaam du koy tere ndax waa sawara ñooy definu ci biir sawara loolu melokaanu waa sawara la loolu tax jullit du tëdd du definu mi ngi leen doon wëlba ci ndeyjoor ak càmmooñ suñu borom ne seen xaj ba ma nga woon bil wasiid wasiid lu bari ñu ngi koy firi bunt bi wala kuuru këf ba loolu it mbokk di wone ànd ak ñu baax ni mu baaxee suñu borom bi muy tagg ndaw ñi mi ngi tuddaale seenub xaj loolu it ngalawaay boo bëggee tedd àdduna ak àllaaxira fexeel di ànd ak ñu baax fexeel di ànd ak ñu baax yeneen ci baale salaam yéen ñëpp yàgg ngeen dégg muy wax toog ak ko baax ak toog ak ko bon différence ba ci nekk ànd ak ñu baax dana la jëriñ àllaaxira yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam nee na waa àjjana daan dugg àjjana ma mujj am benn groupe ne ay yàlla ñun diw ñoo daan toogaale ci àdduna dañu waxtaanee diine dañu waxtaan nangam ci gisuñu leen fekk ñoom def nañ loo xam ne téye na leen gannaaw aljanna suñu borom yàlla ci mbaaxam ak ci teral ñooñu dem jëli la boole la ak ñoom kon da ngay ànd ak ñu ba ñu baax amma ànd ak ñu ba ñëpp suñu borom wax na ko yaa ayuha allazina amanu fi mu ñuy wax naan wala tarkunu ila allazina zalamu fa tamassakumu naar bu leen ànd ak ñu bon loolu mën na leen yóbbu ngeen dugg biir sawara mu ne yaa ayyuha allazina amanu taqullaha wa kunu maa sadiqin heure bu ngeen di ànd àndale nag nit ñu baax nit ñu dëggu kon suñu borom tuddoo seen xaj ba nga xam ne ma nga woon ca bunt ba di garde mbokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne julit du yar xaj julit du yar xaj lu dul xaj boo xam ne da koy sàmmal wala xaj boo xam ne da koy gardeel ay toolam mi ngi noonu amma lenn ci borom xam-xam yi nag ñoom nee nañu islam bu mayee ñu am xaj boo xam ne dafay sàmm ay tool wala ay ay jur xaj buy sàmm doomu aadama moo gën a yey kon ñu ne bu dee waa ji dafa jël benn xaj boo xam ne lam ci jublu rek mooy mu gardeel ko gardeel ko këram loolee am na ci ñenn ci ñoom ñu ko toléré amma nag jël xaj comme ni ka tubaab bi di waxee yal na yàlla yërëm Muhammad Ali boxeur bu mag boobu ngeen xamoon di faatu na day Muhammad Ali naam waaw bu daan tooñ tubaab yi xam ngeen Amérique ni ñu xeebi nit ku ñuul mu naan an nekk légal du du blanc nee na moom daa soxla nekk moroomu nit ku weex nekk nit ku moroomu nit ku weex mooy nekk moroomu xaj mi ngi noonu mooy nekk moroomu xaj nit ku weex mooy tubaab yi lay xas ñoog seen xaj ñooy bokk lekk bokk naan bokk tëdd da ngay gis tubaab bu gàddu xaj bi fóon fóon cim ak seen salte yaa ngi dégg ala kulli xaal mbokk jullit du moom du def loolu jullit du dëkk xaj jublu ci màggal xaj jullit heure buy yor xaj daf koy yor ci jubluwaay ñetti jubluwaay yañ ci islam wax mooy xaj bu lay rëbbal xaj bu lay sàmmal xaj bu lay gardel say tool lii mooy ñetti xaj yi l'islam toléré amma beneen xaj bu dul boobu l'islam d'accordul ci loolu kalbuhum basitur ziraihi bil wasit suñu borom nag mu ne yonente yàlla bi li ngay dër dër aw fit te xam leen ne lu yàlla bind rek ci kaw suuf yonente yàlla bi moo ci gën a dër fit ali ibn bi talib jàmbaru góor ña daana wax ne daanañ dem ci jihaad mbir mi daana tar ci attaque yu yéefir yi def ba suñu digganteeg noonu yonenti yàlla bi kese moo fay nekk yéen ñëpp yéen a ngi fàttali ko keroog uhud bi ma gis sahaaba yi dawee ñu ngi noonu kon moo gënoon dëgër fit ci lu yàlla lu yàlla bind ci nit waaye suñu borom nee na ko li ngay dër dër fit boo ne woon yunn ba gis ashabul kahfi da nga fees da nga fees dell ak tiitaange daw lu waral loolu suñu borom yàlla def na ci ñoom image boo xam ni nit mënu leen dékku yéen a ngi fàttali ko yonent yàlla Muusa aw yatam kese la yor suñu borom ne ko sànni ko ba mu sànni yat bi suñu borom soppili ko muy jaani ñangoor Muusa dafa daw waqet am déet dafa daw waqet nangutul a geesu suñu borom di ko Muusa kaay kaay kaay bul bul tiit naka noonu asaabul kahfi suñu borom yàlla def na ci ñoom melokaan boo xam ne nii ku masoon dof doflu ba yërlu seen kahfi bi doo ko netti ci looloo tax suñu borom tëj leen fa diiru trois siècles kenn dérangé wu leen ba ba yàlla di nag bëgg a feeñal seen mbir mi ngi noonu Cheikh Ousmane.
وكذلك فعلناه ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا barakallahu fikum suñu borom mu ni wa kazalika baasnaahum naka noonu day lañ leen dekkale ay lañ leen yeeye ca seen nelaw ya li yatasaalu baynahum ngiree ñu laajante ci seen biir qaala qaailun minhum noonu la waxee aji wax ca ñoom kam labistum ma moom ñaata ngeen sax ci biir grotte bi qaalu labisna yawman aw ba'da yawm ñu ne sax nañ fi bis wala lenn ci bis qaalu rabbukum a'lamu bima labistum ñu ne yàlla day moo gën a xam li ngeen fi sax fab'asu ahadakum bi wariqikum haadi yónni leen kenn ci yéen ci seen xaalis bi ngeen yor ila al madinata mu jëm ci dëkk ba fal yanzur ayyuha azka taaman mu xool ana kan ca waa dëkk ba mooy sellal aw ñam wa muy jaay fal yatikum bi rizqin minhu mu indi leen jële ca moom ci wërsëg wu jóge ca moom waaye nag wal yatalattaf na laqu bu baax wala yushiranna bikum ahada bu mu feeñal ci yéen kenn ci yéen mi ngi noonu bu mu yëgloo kenn ci la nga xam ne mooy seen mbir innahum in yazharu alaykum waa dëkk bii de buñ demee ba not leen yarjumukum yéen ñëpp dañ leen dóor ay xeer ba ngeen dee aw yu'idukum fi millatihim wala ñu delloo leen ca seen doxalin bi ñu nekkee seen jaamu ga ñuy jaamu yàlla walan tuflihu idan abada ca day du ngeen texe kon mukk mi ngi noonu mbokk suñu boroom bàyyi ne asaabul kahfi la ko soob ci ay siècle gannaaw ba mu dekkal leen cay mu yee leen suñu borom mu ne wa ya'lamu ma jarahtum fi bin nahar suma yab'asukum fihi huwa allazi yatawaffakum bil layl suñu borom nee na maa leen di nelawul ci guddi di leen dekkal ca bëccëg lañ ca jublu rek mooy yee leen moo tax mu ñëw ci ñaani sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan ñu jàngal kenn ci yéen bu yeewoo ci ay nelawam na wax alhamdulillahi lazi ahyaana baadama amaatana wa ilayhi nushur ñu ngi sant yàlla mi ñu dekkal gannaaw bam ñu faate ca ci moom la ñuy dajee ëllëg kon suñu borom yee leen bi ñu yeewoo ñu xoolante xoolante am ku ne waaw ñun bi ñu duggee ci biir grotte bi ñaata lañ fi def am ku jóg xool xool ne ah war nañ fay def 24 heures de wala boo xanaa genn wàll bis wala genn wàll bis loolu bi mu amee ñu bëgg a werante ñu ne déet yàlla moo xam lañu fi def te loolu it mooy waru garu jullit toujours loo xamul bu ca dogu loo xamul bu ca dogu xam-xam it dañ koo war a delloo yàlla te mooy bu ñu la laajee loo xamul nga ne allahu alam yàlla mooy ko gën a xam li ci mën a am daal mooy xiif nañu suñu borom dekkal leen xiif nañu bi ñuy dem wut nañ ab yóbbal ku nekk la nga amoon indi nga ko ut nañ ab yóbbal ñu daal di ne ah suñ caamkaay demal dëkk ba nga seet ñay jaay ca marché ba pour ñoom démb lañ fa jóge de wala barki démb ala kulli xaal bi ngi noonu nga xool ñay jaay ca marché ba nga seet kan mooy defar ñam bu gën a sell nga jëndal ñu ci indil ñu ci loolu it ñu dégg ci ni islam dana nangu lu ñuy tuddee wakiil mooy nit ñu sant ko mu doxal nit service ni ngay waxe demal jëndal ma demal jaayal ma gannaaw ba demal takkal ma soxna demal demal doomu aadama mën na jël place moroomam ci loolu mi ngi noonu ba sax dañu naan doomu aadama sax lay jëriñ sa moroom même bu la joxul ndigal am nga droit sax jëfandikoo ko ci wàllu alalam bu dee intérêt la koy jural yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónni na benn sahaaba na ko demal ci marché bi jëndal ma fa benn gàtt mooy benn xar waa ji bi mu demee yonent baa ko joxoon benn diinaar loolu la doon jar jamono joojee mu dem jënd benn xar bi mu jëndee xar bi bay génn marché bi am benn waay dajeeg moom koy sa xar mi jaay ma ko waay mu ne ko am nga ñaari dinaar mu ne ko waaw jënd xar mi ci ñaari dinaar waa ji delluwaat ci marché bi jënd bañal xar ci dinaar daal di ñëw ci yonent bi alayhi salaam jox ko xar jox ko dinaar yonent bi ne ko waa lii nu mu demee mu nettali ko fi mu jaar yonent bi ne ko yow de yàlla na yàlla bar barkeel sam jënd ak say jaay waa jooju dañ ni amul lu mu daan jël jaay ko lu dul am na ci bénéfice loolu kon dañuy gis ni ay jullit mën nañu jàppalante ci lépp lu leen di jëriñ waaye ñaareel bi it li suñu borom wax ne nañu seet kuy sellal ñamam bokkoo léeg-léeg nga gis lu raar la léegi waaye ak bëri woon bu njëkk mooy service d'hygiène di wër ci bitig yi di wër ci école yi di dàq maire yi di dàq ki lu tax ñiy jaay lu bon ñu leen di ramasse mbokk loolu wuroo ci xaal service d'hygiène lépp loo xamee ni ni baaxul yow jullit wuroo ko jaay ñu ngi noonu borom bitig nga am ku mën a doon lii aw ñam la dem nga ba yëg ne kat lii périmé ne lii baaxul bëggoo sa njaboot lekk ko kooku amoo droit di ko jaay keneen kon seetal koo xam ne dana sellal aw ñam nga jëli ci wërsëg boo xam ne ni indil ñu waaye nag yow miy dem na nga làqu sa kémtaleel kattan bul fexe ba waa dëkk bi jàpp la bu ñu la jàppee ñu xam ne ñun ñi ngi fii ñu ñëw jàpp si bokk na lu borom xam-xam yi ñu jëkk nga xam ne jamono boobu portable xewul woon xewul woon télévision xewul julit ñi lenn moo nekkoon seen programme guddeeg bëccëg muy téere bu yàlla bi ca la amoon ñoo xam ne dañ daan gëstu alquran di jàng xarf par xaraf di ko calculer ñooñu ñu ni alquran mi ngi daje ci baatu fal yatalattaf mi ngi noonu ci laam gi ngay jëkk a jàng mooy xaaj bu kaw bi li ci des mooy xaaju suuf bi loolu am na ñenn ñu ko jàpp ne alquran nekk na 323 671 ci ay xarf mi ngi noonu yeneen ci bàyyi sam ne na nag xarf boo ci jàng am nga fukki tuyaaba boo ko xoolee day nekk 3 millions 200 et quelques mille cay gaa yi bu doon tene ne ku jàng téereb alquran ba mu jeex ñu ne la bëcc chegub 3 millions kon da nga gis yaakaar naa ah ah ñu koy jàng ci 3000.
waaw waaw exactement waa ji mu ne am na groupe yu koy jàng ci 3000 yaa ngi dégg waaye mbokk da ngay gis loolu la mooy suñu borom yàlla subhanahu wa taala téeréem bi dajale nañ ci plus de 323 000 et quelques ci ay xarf te nee na xarf boo ci jàng dencal naa la fukki tiyaaba xarf boo ci jàng dencal naa la fukki tiyaaba walla waaye gars yi nañ jël lenn ci portable bi viré ko téere bi yàlla bi di jàng téere bi yàlla bi mi ngi noonu jàpp naa amul kenn ci ñun ko xalaat xëy bi mu xëyee suba ba baa muy tëdd ca xoolul portable am yaakaar naa amul kenn ci ñun ko xalaat loolu abadan mbaa loolu it daañ ko yóbbaale fexe ba kenn ci ñun du xalaat xëy suba ba mu tëdd ca utul heure boo xam ne toog na ko jàng téere bi yàlla bi mi ngi noonu kon na làqu fexe ba kenn bu mu leen gis te it lii mbokk tamit daf ñuy jàngal ci ne wékku ci yàlla dàqantewul ak jël say matukaay am déet noo ne ashabul kahfi def mooy ba ñuy bëggee rëcc seen waa dëkk dañoo xool benn montagne boo xam ne am na xunt bu fa nekk ñu dem làqu fa yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam ak i sahabaam moom it noonu la defoon keroog bu muy gàdday ànd ak Abubakar dañoo dem ca xaaru sawr wax naa la tafsir passé xaar mooy këf bu ndaw benn kunt bu ndaw fa la ñu nekkoon moog Abubakar fa la ñu làqu diiru ñetti fan ba waa mag riggal ci wër gi ñu leen di wër ka nga xamee ne ni mooy Abdurahman ibnu Abubakar moo daan yenn dog waa Makka di jël seeni xabaar bu guddee mu dem nettali leen ko mais teewul da ngay gis kenn ci booyu abubakar yi moo daan jël ak juróom di ko jaarale ci tànk abu abdurahman ba baawaa màkk bañ koo gis loolu day dëppook aay bi ca mooy fexeel ba yow miy dem fexeel ba waa dëkk bu ñu xam ne ñu ngi fili ndax bis bu ñu jàppee ñaar doo nga mën a am ñun ñépp daan ñu dóor ay xeer ba ñu dee wala ñu man ma ne ñu ba delloo ñu ci seen diina ji ca bu këroogee de du ñu texe ba faw lii mbokk da ngay gis kon moom la ñu wax إن شاء الله شيخ عثمان
وكذلك أعرضنا على الإبل يعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمال فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا barakallahu fikum suñu borom mu ni wa kazalika a'sarna alayhim ci noonu day lañu feeñale ci ñoom li ya'lamu anna wa'da allahi haqq ngiree waa dëkk ba xam ne digub yàlla day dëgg la wa anna saa'ata la rayba fiha ca la nga xamee ne nii day mooy bisu penc benn sikk amul ca loolu is yatanaza'una baynahum amrahum jamono ba nga xamee ne ma ngay xëccoo waa dëkk ba lii di mbiru xale ya fa qaalu bnu alayhim bunyaana ñu ne ñii dal nañ tabax ci ñoom ab tabax ferme leen fi rabbuhum a'lamu bihim yàlla moo gën a xam seen mbir qaala allazina galabu ala amrihim noonu la waxee ña nga xam ne dañoo not ci seen mbir ya la nattaqidanna alayhim masjida ñun de daan jël ci seen kaw jàkk bu ñuy jaamoo yàlla sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum xel se nañoo wax ñoom de ñett lañu ka leen ñeenteel mooy seen xaj ba wa yaquluna xamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghayb daañu waxit ne ah déedéet juróom lañu ka leen juróom benneel mooy seen xaj ba loolu lépp ñi ngi sànni jëm ci kumpa wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum am nañu wax ba tey ne déedéet juróom ñaar lañu ka leen juróom ñetteel mooy seen xaj ba qul rabbi a'lamu bi iddatihim neel yàlla gën a xam seen limba maa ya'lamuhum illa qalil limba de xamu ko lu dul lu néew fala tumaari fihim illa miraan zahira bul nekk nag di dàggasante ci mbir moomi lu dul dàggasante boo xam ne bu kawe rek lay doon du doon lu ñu xóotal wala tastafti fihim minhum ahada waaye bul sakku ubbeeku ci seen mbir kenn ci ñi nga xam ne ñoom ngay waxal mi ngi noonu mbokko kenn ca jeunes ya dem na ca dëkk ba bim ñëwee ku nekk war na imaginer suñu mbokk moodu moodu yi fi jóge dem bitim réew rek ku ci def 15 ans wala 20 ans dellusiwaat Dakar da ngay yéemu ci changement yi ngay gis waaw xoolal koo xam ni nag dëkk bi ba mu fi gëjee mat na ñetti téeméeri at yu topp ñetti téeméeri at léegi mu ñëw ak xaalisam moom wadeloo ci yenn mufassiruna yi ak lenn lu ñu jëlee ci israéliyat yi wallahu aalam ala kulli xaal ñoo ne ci marché bi tëni bi mu sol bokkul ak tëni waa réew mi xaalis bi mu yoroo xamuñu ko bi mu ñëwee ne day jënd gaa yi xool xaalis bi ku ko xool jox sa morom ku ko xool jox sa morom ba mujj ñu ne mais lii xaalis bi day kenn xamuloon kañ la woon ñu laaj ko ay mbiram muy nakk-nakkal ñu ne kii nañ ko yóbbu pale ba ñu jël ko yóbbu ko pale ba fekk entre temps bokk na la mu fassiruna yi di wax yàlla yu ñu ne isa ibn maryam ba waa dëkk ba léegi ay chrétien lañu la ëpp ci ñoom ay jurit lañu bi ko buur bi enquêté mu ne ko waaye ñun démb lañ fi jógee waa dëkk bi dañ doon jaamu xëram dañ doon nangam dañ doon nangam ca jeexitalu histoire boobu mooy xale yi gaddaa yoon kenn mujjul xam ci lu ñu nekk loolu moom mi ngi desoon ci mag ñi ba tey gannaaw ba nag lañu xam ne ah kii mooy kon xale yi fi gàddaay woon des siècles buur bi ànd ak waa dëkk bi ñu ne nañ dem ca grotte ba fekk fa ñu ca des ci li ñu nettali ñu ne xale bi bi mu ñëwee def ne leen ni su ngeen demee ñoom dañuy tiit bàyyi leen ma dem avertir leen ba pare yéen ngeen doog a ñëw ba mu demee bu duggaat ci biir xunti ma rek suñu borom faat leen ñoom juróom-ñaar ñëpp mi ngi noonu léegi buur bi ñëw gaa yi ñëw gis leen ñi ngi doog a faatu te sept lu jege trois siècles lañu fi jóge woon loolu nag léegi waa dëkk bi ne waaw lu ñuy def ñu ne ñii daal yàlla gën a xam seeni mbir léegi nañ leen fi tëj ñu daal di leen di tëj waaye suñu borom nee na ña not ci seen mbir ca mooy buur ya nga xam ne seen wax kenn du ko teggi ne dañ fi tabax jàkka li suñu borom ne xalabu mooy kon juyoo amoon na te mooy borom xam-xam yi waxoon nañu leen déedéet tabax fi jàkk daganul ca loolu mbokk bokk na lu bari ci loo xam ne nii nit ñi mujj nañ caa dugg te mooy jël ay jàkka di dugal ci biir xabru wala jël xabru dugal ci jàkka aay bi mel ni moo leen réeral waaye bu ñu déggoon tafsir bi dëgg-dëgg dañuy xam ne juuyoo moo ci amoon te ñañ not ci mbooloo mu mën a doon mooy ñu ëpp ñoo ñu xamul loolu kon moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci jundub ibnu abdullah ak lenn ci ay soxnaam juróomi fan avant muy faatu doon na wax yal na yàlla rëbb yahudi ak nasaraan yi ñoom de ñooy def fu seen borom xam-xam wala seen yonente faatu ñu dem suul ko ci seen jàkka yi ca di tere loolu mu des beneen question mooy ah mais yonente bi alayhi salaam ci jàkkaam lañ ko suul mbokk yonente bi alayhi salaam kenn suulu ko ci jàkkaam ay buur ñoo jël jàkka ji yóbbu fa waaye yonente bi alayhi salaam ñi ngi ko suul néegi yaay Aïcha këram dafa nekk ni jàkka ji taq ci kër gi ba nga xamee ni bu masaan ubbi ne fenêtre yaay Aïcha boppam day feeñ ci biir jàkka ji bi mu faatoo ñu suul ko ci néeg yaay Aïcha ba ñu demee ba lu jege xaw na jege téeméeri at ca la benn buur ñëw jamono jooju sax ki nekkoon gouverneur Médine mooy Omar ibn Abdul Aziz mu ne ko nañ yokk jàkka yonente bi alayhi salaam dugal ci la nga xam ne ni mooy kër ga yokk ko ña fa desoon ci ay boromi xam-xam bañ waaye xam nga waxi boromi xam-xam kenn du ko méngaleeg waxi buur li buur wax la ñuy def ca lañ jël jàkk xabru ba dugal ko ci biir jàkka ji waaye mbokk loolu da ngay gis ne mbir la boo xam ne buur yi ñëw gannaawam sax am na ñu ko bëggoon a tëj ginnewaat ko ki ci daje woon ak ibnu musayib daf na ko no kon dañuy foye xabru yorente bi boo ko tojee génnaat ko it keneen di ñëw tojat ko dugalaat ko ci waaye daal ci gàttal boo ko xam nañ ne xabru fu mu nekk kenn wuru faa tabax jàkka jàkka fu mu nekk kenn wuru faa dugal xabru mi ngi noonu heure boo nekkee ci dëkk nga gis jàkka ba am xabru galluwaay boobu ameen jàkk bu gën a jege demal julli ci jàkk boobee su dee mënoo nag am foo jëlee lu dul jàkk boobee fexeel ba fooy taxaw bul taxaw di jàkkaarloo ak fa xabru ba nekk loolee ñu bàyyi ci xel bu baax bokk jullit dañuy gis ne lii moom mooy lii ñu suñu borom yàlla subhanahu wa taala wax xam naa ni incha allah ñu ñaan Cheikh Ousmane ñu yeggale ko histoire bi benn yoon rek comme ni ci des bariwul bismillah ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غير السماوات والأرض أرسل به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا jazakallahu xayra suñu borom subhanahu wa taala kon mu ni wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada bul wax mbukk ci benn mbir ne lii day danaa ko def ëllëg illa an yasha allah xanaa lu dul dafa neex yàlla wazkur rabbaka ida nasita fàttalikul sa boroom heure boo fàttee وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا نيلت من أم سما بروم جبل ما تلو جنا جيجي تلي تأمجب ولبسوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا سخن ننتي سن كنت من نتي تيميري أت بدولي تجرم ننتي أت قل الله أعلم بما لبثوا نيل يالا مو جنا خم لن سخ تبير كنت ما له غيب السماوات والأرض نيل نكو ليغا خم نني moom mooy nguuru asamaan yi ak suuf absir bihi wa asmi euh, gën naa nekk di aji gis lu mu mën a doon mooy borom bi subhanahu wa taala moo gën a gis lépp wa asmi moo gën a xam dégg lépp ma lahum min dunihi min waliyin ñeelu leen gannaaw moom kenn ku ñuy féetewoo wala yushriku fi hukmihi ahada ca du bo du bokkaale kenn ci ay atteem watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik jàngal li ñu wax yu jëme ci yow ci sa téere borom bi la mubaddila li kalimaati amul mukk ak coppite guy am ci ay kaddoom walan tajida min dunihi multahada ca doo am gannaaw yàlla kenn koo xam ne da nga mën a làqu jëm ca moom ni ngi noonu bokk julit kon ñu ngi ñaan yàlla taw bi yàlla na ko yàlla def taw barke taw jàmm waa ashabul kahfi juyoo woon nañ ci seen mbir ñii naan ñett la ñoom juróom la ñoom ak lu kenn xamul waaye suñu boroom xamal nañu ne loolu ñuy wax dañuy lambatu rek mooy rajaman bil xëyb gannaaw ba nag lay doog a wax ne am na ñu ne juróom-ñaar lañu ka leen juróom-ñetteel mooy seen xaj ba loolu muy wane na kon lay dëgg comme na ko Ibn Abbas doon waxe juróom-ñaar lañu woon ka leen juróom-ñetteel mooy seen xaj ba suñu borom it tere nañu dagg sante ci loo xam ne amul njëriñ ca mooy asaabul kahf ndax juróom lañu wala juróom-ñaar amul njëriñ kon it lépp loo xam ne nii xam lim ba amul njëriñ yow julit bul nekk di taral dagg sante ci loolu gannaaw ba nag suñu borom ne yonent yàlla bi bul wax mukk danaa def lii suba lu dul nga ne insha allah ndax bi waa màkk ñëwee laaj ko lan nga xam ci histoire asaabul kahfi daf ne bu subaa danaa leen tontu sans mu wax insha allah gannaaw ba la ko yàlla nattoo fukki fan ak juróom yoo xamee ni nii jibril wàccul suñu borom tere ko kon bul defe ci loolu loolu di bind boo xam ne ku nekk ci ñeen war koo yóbbaale ca mooy bul wax mukk danaa def lii ëllëg lu dul nga ne insha allah gannaaw bala suñu borom yàlla it subhanahu wa taala di wax ne seen biir xunti ma ña ngi fa def ñetti siècle yoo xamee ne nii teg nañ ci juróom-ñeent ñetti siècle ñi ngi ci namm lii bu dee atu jant bi la ñuy compter teg nañ ca juróom-ñeent mooy ña ngi ca namm bu dee ne ci atu weer bi ngay compter borom boobu nag nee na moo xam kumpay asamaan ak suuf mooy atte lu ko neex ca ay atteem du ci boole kenn li ko neex mooy am lu ko neexul du am yow julit yi nag suñu borom mi ngi lay dénk foo tollu del jàng ci sa téere borom te xam ne ay waxam du soppeeku te it xamal ne doo mën a am mukk gannaaw yàlla kenn koy làqu du ca jëm kon mbokk julit ñu ngi jéggalu ci ni ñu tënke tafsiru aaya yu mujj yi di ñaan yàlla subhanahu wa taala la cay jubluwaay bay jëriñ yàlla xamal ñu ko yal na yàlla defal ñu tawfiq fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain